boy sigil ma xool la lu bëgg ma jël la. Dalifort se présente Serif Diallo partant Abu Bakar Nyang. waaw. waaw baax ma jël gaay. sonal gaay. waaw tollu jël baax tuuti xaar ma ñëw. non yow la ñëw. waaw ay question yu ma la laaj équipe bi mooy bonne équipe. Dalifort. Ah, ah. lan la championnat ngi ni fu mu doon match amical. championnat la ñuy joué. championnat la ñuy joué. day moom. waaw ay tey mooy suñu premier jour. donc aw ma nombre exact. waaw waaw ñun euh, premier journée bi dañoo exempté parce que dañoo am activité moo tax nekkoon football donc tey mooy suñu premier match championnat mais suñu premier match euh, normalement weekend ba le passé la mais comme que dañoo xatoon dañ ko reporté donc dañuy jàpp tey mooy suñu premier jour mooy suñu entrée ci match bi pour mën a am concentré pour gagner parce que recevoir moom dafa métti quoi ku la fekk si il paraît foog nga mën a gagner si sa biir terrain léegi yow looy mën mën a conseillé sa joueur yi nga xam nga compétition ci dugg. daa am anam bu ciy duggee surtout championnat yaatu na nag parce que du benn match ay match la c'est important match la donc équipe bi xaw ma la mu indi man lama indi laa xam te gëm naa ni bon buñ ci concentré euh, buñ defee application rek on peut s'en sortir facilement bon ñaanal booyee ndam waaw Ahmed. waaw. <laughs> Ah waaw. waaw ah, mais xoolal.

salaamaaleykum na nga def gaañ sant waay ak jàmm yow yaay bon coach Ibrahima Ibrahima Dalifort Dalifort foot Dalifort ah. tey da ngeen ñëw Malika ñëw pour football fii match amical wala match euh, championnat tey dañoo def euh, championnat inter académique académique waaw bu coach Fabregas seen i organisé ah. tey nag mooy euh, suñu deuxième journée ah. waaw suñu première année tamit suñu première fois ñu participer ci de toute façon nag gis nañ daal initiative bu rafet la trop sax match de poule la wala ay match euh, kii la dóomu toog la match de poule la ñëppay daje ñëppay daje ah, euh, poule la hmm. dix équipes de neuf matchs aller neuf matchs retour ah, ce qui fait euh, dix-huit matchs dix-huit matchs waaw sa équipe centre de formation bi ban année nga ko man maa ngi formé école de vol bi le vingt-sept septembre ah. 2015. Euh, mais am ngay joueur yoo xam ne tey def nañ texte ba dem ba gars yi jël leen. si am naa joueur yu nekk euh, Tigre benn centre bu euh, FC Tigre. FC Tigre bi ñëwoon Sariya Paz doon dayee kii. waaw ñëwoon parce club bi bu Malika. ah d' accord ñëwoon nañ fi ba gars yi day ba gars yi doon leen 4-1. Ah, tubaab bi nekkoon am sama joueur bi fa nekk am naa fa ay cadet am naa fa gardien am naa fa petite catégorie pipi Benjamin ak Minim. bii mooy sa premier bii mooy seen premier match. ah bii mooy suñu deuxième match. deuxième match suñu premier match bi dañoo forfait woon. dañoo forfait woon dañoo forfait bii mooy suñu deuxième match. ban équipe ngeen forfait woon. ñu forfait woon Petit Talent. Petit Talent Petit Talent bu Marseille. bu Marseille. Ah, ah. kon léegi bii mooy seen deuxième match. waaw ah, bii mooy suñu deuxième match. ah léegi kon poule bu nekk quatre équipes quatre équipes la. non du poule ñëppay daje daal. ñëppay daje championnat la championnat ñaari équipe la. dix équipes. léegi ku jël ku dóor ñëpp moo jël championnat bi. je crois xam naa ku dóor ñëpp moo ko jël wala les deux premiers daa dem final direct. ah dëgg la xam naa chaque dimanche day am wala par quinze jours. par par weekend. chaque weekend day am chaque weekend day am. léegi weekend bi ñëw foo leen jëm. weekend bi ñëw suñu terrain la incha allah ñu ngi recevoir suñu terrain léegi sa dernier cadre suñu dernier cadre daal rafetlu appel daal ñu ñaan yàlla ñu ko ci bisimilah rahmaani rahim jeexal alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin que le daal